dugg léegi sax waaye euh, laataa ñuy dugg si euh, Touba euh, situation politique gis nañ aussi yenn coow yoo xam ni wala boog mën nañ kaa jàppee noonu en tout cas mooy si diggante ki nga xam ni moo di le ministre Mame Mbaye ak Amadou Ba wax nga ko léegi say say si say biir wax. réellement lan moo xew si seen diggante. non man li ma jàpp mooy dafa am ñoo xam ne ñi ngi bokk ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar man jàpp naa ne ay traître lañu. Ah ndax doon traitre weesuwul du ma tudd tur mais jaam weesuwul tey Macky Sall mi nga xam ne moo la tànn def la ministre ngay ngandal biir Macky Sall moomu tey ñi mu la tànne moo tànn Amadou Ba def ko candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar ci loo xam ne ñun ñëpp dañ ci d'accord Amadou Ba buñ ko toon keneen ku ñu tànn man jàpp naa ne Amadou Ba moo la gën a doon profil bu baax te Sénégal Amadou Ba la gën a soxla pour mu jiitu ko ak beneen Farimata Ba ndax boo xam ne tojoo fenn amoo ab jàng defuloo dara ci réew mi léegi nag Mame Mbaye Niang li nga xam ne moom la def man dama koy ñaawlu ak képp koo xam ne mel nga ne moom ñi nga xam ne dañu nekk ci suuf bokk ci biir coalition bi di soxlu le candidat Amadou Ba dama jàpp ne ñoom ñëpp le président Macky Sall ci boppam la ñuy xeex kenn ci ñoom ku xeex Amadou Ba amul parce que bu fekkee ne ñun coalition Benno Bokk Yaakaar amuñu ñaari candidat amuñu ñetti candidat ñun kenn lañu ñu am muy amadu Ba kenn kooku Macky Sall moo ko tànn ci lu ñu xam ñun ñëpp Sénégal ñun aussi coalition bi ñëpp ànd ci ak moom kon képp koo xam ne yaa ngi ci biir coalition bi doonal ministre doonal directeur doonal loola neex boo taxawee di xeex Amadou Ba xeexuloo ko Macky Sall nga bëgg a toroxal kon Mame Mbaye Niang noonu président Macky Sall la te Macky Sall lay xeex. ah Benno Bokk Yaakaar lay xeex. Mame Mbaye Niang nit la ko iñaan parce que soxor weesuwul ñu tànn koo xam ne du sa moroom ci dayoo bu dee liggéey li Amadou Ba def ci liggéey euh, réew mi Mame Mbaye Niang deful genn wàllaat ga Mame Mbaye fu mu toj fan la toj lan la defal Sénégal bu weesoo wax lu ñaaw. yow Mame Mbaye Niang fu mu toj. dama ne fan la toj allié président de la République Amadou Ba du moroomu Mame du moroomu keneen ku dul Mame Mbaye sénégalais yi Amadou Ba la ñu gëm te Amadou Ba la ñu bëgg te incha allahu moom la ñuy fan premier tour incha allah. Mame Mbaye Niang moom euh, soo waxee Mame Mbaye euh, dama lay wax rek xaaral ma wax la soo waxee Mame Mbaye Niang nii fu mu toj loolu wax ju yàqu la ndax Mame Mbaye Niang yow nii ma jàkkaarloo wala ñi toog nii yàgg naa doon allié kan moo ci mën a wax fu Mame Mbaye toj ak fu mas a gagné ci àddunaam allié président la République ñun ñëpp ay allié président Macky Sall depuis depuis combien de temps ñëpp ma ci parti bi man mii di wax ak yow 2008 ba tey maa ngi ci parti Alliance pour la République peut-être am na sens président Macky Sall dina ko ngor fal na ko def ko ministre def ko li mu doon tey na ko delloo ngor loolu mooy dëgg yow ki nga xam ne moo la fal moo la def li nga doom moo tax ba sénégalais yi man la gis xool la kooku moo tànn Amadou Ba nañu bàyyi soxor bi ñu dem jàppale ji Amadou Ba jox ko réew mi ndax mérité na ko te man na ko te sénégalais yi soxla nañ ko pour mu jiitu ko réew mi. d'accord ñu wax si euh, seen sa diwaan. Euh, fa nga jógee mooy Touba. Mhm. Euh, yaa ngi ñu fàttali ba léegi que ñi ak Talla Sylla bokk jiite COJER bu diwaanu Touba. Mhm. sa diwaanu Touba. naka ngeen euh, tëree foofu lay de si seen euh, coalition bi da di Benno Bokk Yaakaar. waaw Touba moom bu fekkee ne maa ngi wax ak le candidat di wax ak le président Macky Sall di wax ak bépp membre wala kilifa coalition Benno Bokk Yaakaar. Mhm. mooy ka foofu war nañ fa ñëwaat xoolaat doxin bi ak taxawaay bi. ndax bu ñu waxantee dëgg bari na sooxe yoo xam ne ci biir Touba am na fa. te Touba mooy dëkk bi gën a compliqué ci coalition Benno Bokk Yaakaar suñu dem ci ay élection ba gañe ko te li ma gëm mooy élection yii dafa war a effacer lépp loo xam ne doon na fi am comme résultat yu bon moo tax may woo d'abord le président Macky sàll mais aussi ki nga xam ne mooy le candidat amadu Ba. mais lan moo xew Touba exactement lan moo fa am exactement non c'est-à-dire tey problème bi fa am mooy dañ ko découper ay zone ci biir zone yi bari na ay coow yoo xam ne jàpp naa ne buñ ko réglé wut fii ak élection mën na am lu bari lu mu yàqu. comme la ñaareel ba mooy mooy da ngay gis zone boo xam ne tey day am benn minorité de trois ou quatre personnes ñoom ñooy taxaw di utiliser di fowe di nga xam ne mooy parti bu lëmu ñeneen ñi duñ ci gis seen bopp ñeneen ñi respect ak considération biñ ca war a am amuñ ko ci. beneen aussi boo xam ne am na fa mooy manque de moyen boo xam ne am na te jàpp naa ne kilifa yi. war nañu jóg ci dëkk bu mel noonu nga xam ne da nga koy ñàkk danga leen war a renforcer ba bu ñu demee ci élection au moins que bu luñ ko bëgg dinañ ko am heureusement que am nañ ay nit yoo xam ne ku mel ne soxna Fatou Bintou buy exemple nga xam ne leader la doom soxna sëñ Abdou Karim lépp loo xam ne tey namoon nañ ko démb te daawuñu ko am ci jàppandal mi ngi ciy def kéemtalaay kàttanam jigéen ñi nga xam ne aussi waxatuma Touba mais man tey dama ko considéré tey que réseau de Diourbel ba mu daj mboolem jigéen bu fi nekk rek soxna Faat Bintou Pouye mooy sa kilifa ci coalition Benno Bokk Yaakaar xam nga lu tax parce que bërki démb rek bu ma jëlee exemple jël na lu toll ci junni jigéen yoo xam ne tey non 5000 jigéen yoo xam ne tey ku ci nekk defal nañ la formation formation boo xam ne buñ paree dañ lay accompagner bi mu paree jigéen yi nga xam ne ñoo dëkk Diourbel ci jëmmi boppam xam nga loolu génn na Touba génn na Mbàkke ñoom ñoo ko waxal seen bopp que ne ñun de Jurbel gi ñu dëkk gisuñu jigéen ju am dayoo kon yow ñëw di ñu jàppale ci wàllu formation sàkku ci moom ba maa ngi wax ne prochaine formation yi ñuy def dinañ gis ay jigéen yu jugee Jurbel ay jigéen yu jugee Bambey yu jugee Mbàkke ak biir Touba ñu defalaat leen encore formation ndax jigéen ñi dañ leen war a jàppale te bàyyi di leen jëfandikoo. parce que jigéenu réew mi sonn nañu mais surtout na jigéenu Touba. kon soxna Fatou Bintou Pouye moomu tey exemple laa jël ci moom mais di woo ñeneen ñi nga xam ne aussi comme moom di wax Amadou Ba ne dañu soxla xeetu nit yooyu nga xam ne am nañu mbooloo comme soxna Fatou Bintou Pouye mais aussi am nañu alal di ko jàppalee askan wi te yàlla tax te yàgg koo def wax nga léegi am na ñeneen ñoo xam ne aussi tey dama jël exemple ci moom di woo ñeneen ñi nga xam ne bëgg nañu jëm ci coalition bi nañu ñëw ubbil nañ leen suñuy bunt ndax coalition bi dafa war a yaatu dañu war a dooleel le candidat Amadou ndax loolu euh, wax nga ko léegi say biir wax que ni Touba mosoo leen faa gagné. way euh, PDS la woon. te tey jii mm-hmm. gis nañ aussi la montée en puissance. Mm-hmm. Euh, ni nga ko waxatee sax ba kii di ñoŋale wala boog ñi nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko. Mm-hmm. tey jii loolu est-ce que du menace yéen ñi ngeen xam ne yéen a nekkee foofu. non Touba menace amu fa bu dee ci côté Ousmane Sonko dañuy waxante dëgg cest à d'accord naa ne PDS. ah ñoom seen Cheikh Thioro euh, bu ma wax ay Cheikh Thioro Cheikh Thioro lu mu tekk ci politique ak fu mu toj damaa bëgg boo may wax nga wax ma ay nit yoo xam ne ñun soxla nañ leen comme ay référence yow seen Cheikh Thioro di ko lu mu tekk ci politique laa bëgg nga wax ma ko man bu fekkee am na lu mu mas a defal tuubaa wala député bi mu doon nga xam ne dafa fakkastalu ba doon député wax ma benn yoon bu seex Thioro masee taxaw ci hémicycle bi mu défendre intérêt wu Touba amul moom ak Cheikh Abdou Bara Dolly ñooyam c'est-à-dire fakkas na fakkastalo nañu nax nañu waa Touba ba waa Touba jox leen ñu doon ay député mais gëm naa ne boobu la njëkk te boobu lay mujj te ñun ñii aussi taxawaay bi ñu am ci seeni tànk mooy beneen élection bu ñëwee ñu dem assemblée nationale teewal fa waa Touba bu ko defee ñoom ñooñu nga xam ne ay naxakat lañu ay nit ñu population bu Touba lañu kenn ci waa Touba dootu leen dégloo ci. Mhm. léegi benn question ñu daal di yëkkati jotaay bi gis ngeen aussi euh, ndogal yi nga xam ni. xalif général de des mourides Serigne Mountakha Mbacké jëlal na ko euh, sa diwaanu Touba euh, kat ñu daal di euh, délocaliser en tout cas bërëbu yi nga xam ne dañ fay voté sa diwaanu Touba ñu daal koy tuxal donte ni sax si élection yi bàyyi sëriñ bi bàyyi na bërëb yooyu noonu ñun mënu faa voté yow loolu ban jàngat nga si def très rapide waaw d'abord li may njëkk wane foofu mooy ñun lépp lu sëriñ bi def neex nañu bokkuñu ci jeunes yi nga xam ne wala ay politiciens yi nga xam ne Touba la ñu dëkk bu sëriñ bi ne waaw ñu ne déet bu sëriñ bi ne déet ñu ne waaw ñun bokkuñ ci ñooñu sëriñ Muntaxa la ñu gëm tey moom la ñu gëm suba li mu dogal Touba am na lu ko andi mooy Sonko moo fa ñëwoon aku njabootam ñoom Seex Coro ñii ngay wax dugg ci biir jumaay sëñ Touba ji di fecc di tëgg di def loo xam ne méngoowul ak li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi ah. sëriñ bi nag la mu ayee ñu nangul nañ ko ko incha allahu lépp loo xam ne manifestation politique buy dajale mbooloo Benno Bokk Yaakaar du ko def lépp loo xam ne lu méngoowul ak réalité yi ñu bëgg ci dëkk bi Benno Bokk Yaakaar du ko def donc nag dinañu dem ci nit ñi def suñu ay visite de proximité mooy dem fekki askan wi fa ñu nekk waxtaan ak ñoom ci njekk wan leen suñu candidat ak procès bu ñu eggee élection ñu gañe ko mais nag leneen lu dul loolu ci kàttanu yàlla du ñu ko def ñun sëriñ bi la ñu gëm te mooy suñu lépp lu mu wax loolu la ñu wax lu mu waxut waxuñu loolu donc bu amee ñeneen ñoo xam ne sëriñ bi day décider day day joxe ndigal bokk ñu contre la ñun xam nañu ne waa Pastef la wala waa ex Pastef ñun xam nañu ne ñoom Cheikh Thioro ñooñu la. Mhm. donc daal ci côté coalition bennoo Bokk Yaakaar Touba li ma leen di ñaanaat mooy ñu wàññi siisante bi wàññi boddee compte bi. ñu jéem a boole ñëpp ñi nga xam ne dañoo bëgg a bokk ci liggéey bi ndax loolu mooy intérêt coalition bi loolu mooy intérêt candidat bi. ñu fexe ba ñi nga xam ne peut-être duñ ay coordonnateur u zone aussi mhm. ñu intégré leen ci liggéey bi parce que buñ jëlee yëf yamale ko ci benn groupe rek jàpp naa ne loolu yàq la gën a niru ko defar mhm. donc ñu dooleel aussi jeunesse bi loolu yëpp daal jàpp naa ne buñ ko defee buñ demee ci élection yi am ndam jërëjëf mu mel ne waxtu bi nga xam ne moom la ne cëralee eh, daanaka jeex na euh, Talla lan ngay tàggatoo bon di leen sant di leen gërëm ci euh, euh, dalal bi yow surtout mais aussi sa caméraman ak mboolem personnel bi fi nekk di sant sénégalais yëpp yi nga xam ne peut-être bon bon ñu ngi ñuy suivre émission bi di aussi ñaan rek sénégalais yi ñu bàyyi xel ci élection yi aussi bu ñu demee ñu jàppale suñu candidat Amadou Ba jox ko réew mi ndax kat jamono ji su région bi dooy na waar bu ñu joxee réew mi koo xam ne bon amul xam-xam amul jaar-jaar aussi jàpp naa ne ëllëg lay xaar Sénégal mi ngi suñu kanam jamonoy pétrole ak gaz la ñu toll kon Sénégal doonatul réew mu ndaw bu ñu ko jox ko ndaw. ñoom ñëpp dañ incha allah. di ko jaajëfal lu baax baax moom ki nga xam ni moo di euh, Talla Sylla di coordonnateur COJER euh, sa diwaanu Touba moom la ñu dalaloon tey jii euh, si entretien bi nga xam ni saa su nekk dañ koy def ici au niveau de Sénégal 7 di jaajëfal lu baax a baax ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon si liggéey bi di Dieye Samb ak ki nga xam ni moo di Babacar Sané di sama doomu baay waaye tamit. di jaajëfal lu baax a baax a baax euh, toute l'équipe de coordination euh, la rédaction la direction de Sénégal 7 di leen jaajëfal lu baax a baax euh, mbokk yi way leen di ànd ak suñuy programme si Sénégal 7 d'ici là portez-vous bien waaye tamit bu leen tuxal benn yoon seen seetaan ndax si kanam tuuti di ngeen ànd ak programme yi jërë ngeen jëf